mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey ñu amaat yéene dalalaat euh, sunu dalal fi sunu gan mu di Mamadou Gueye nekk euh, conseiller fële ca mairie wu Parcelles Assainies waaye laata loolu dañuy njaa jaale ki nga xam ni moom moo di Pape Diouf nekkoon fi ancien président bu olympique bu Marseille defoon fi jaloore ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllum tàggat yaram ak sport ak beneen kàngam bi nga xam ne génn na fi àdduna mu di golbeer Diagne mu nekk ñaari nit yi nga xam ne yu amoon na dayoo lañ fii ci nim réew ñoom ñoo génn àdduna di leen ñaanal rek eh, yàlla xare leen àjjana géy yow it eh, bu fekkee rek am na ci as tuut li nga xam ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fi génn àdduna ci fan yi rek eh, na kàddu gu njëkk yi ginnaaw ban la lay jàmm ci émission gox bi jërëjëf Mbemba maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu vraiment seen auditeurs yëpp mi FM di la wax ne rek muy ñaar ñoo xam ne vraiment je profit de cette occasion pour vraiment jaale ko Sénégal yëpp jaale ko seen famille mhm. parce que Pape Diouf moom ku ko xam ne ne dafa sigil vraiment Sénégal mhm. Afrique del bu ñuul la sigil mhm. donc muy une très très grosse perte te vraiment la mu def ca Marseille yëpp waxuma sax mais ci Europe ci monde bi ñëpp gis nañ ko Euh, di euh, aussi jaale koo xam ne euh, xawma ma ko. Mm-hmm. muy suñu papa Golbert. Mm-hmm. donc à travers télé yi laa ko xamee. Mm-hmm. te li ma gën a neex ci moom rek. ndax ma naw ko bëgg ko mooy dafa bëgg ay waajuram. bis nga keroog uh, suy wax ci doom ji rek. dafay mhm. fàttali papa ji te xolam day jooy. Mhm. man ku bëgg sa waajur rek dama lay naw dama lay bëgg. Mhm. donc di ko jaale waa Ndar yëpp. mais aussi di ko jaale Sénégal parce que Sénégal moo perte. jërëjëf di leen uh, ñaanal yàlla rek yàlla xare leen àjjana waaye nag uh, ginnaaw loolu fa tey ci émission gox bi. xam ngeen ni mbas bi nga xam ni moom moo wàcc fii ci Sénégal ba tax na ku nekk mi ngi jug Euh, sa rukk bi nga nekkoon yaa ngi fay génn di sensibiliser sa gox tey ñu war si euh, dalal Mamadou Gueye ñu daat si waxtaan ci nu mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbas moomu ak waa parcelle wala mairie bi sax ñoom nan la ñuy préparer pour génne seen matuwaay ngir fàggandiku ci jàngoro boobu nga xam ni moom moo lëmbee àdduna fi ci àdduna bi nii alors Mamadou Gueye tey sensibilisation ci coronavirus bi fan ngeen ci toll ci diwaanu Parcelles Assainies waaw ma ñëwaat rek euh, di la remercier ci opportunité bi nga ma jox pour ma waxtaan ak Sénégal mais waxtaan ak Parcelles Assainies mhm. di wax na rek euh, sensibilisation effectivement mu ngi am au parcel Assainies mhm. parce que je commence par le maire qui mhm. est l'édile le premier magistrat je crois que moom commencé na sensibilisation bi au niveau euh, de la commune. Mm-hmm. bien que y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mm-hmm. sur la manière bi ñu koy defee. Mm-hmm. mais je crois que on les a alertés pour que ñoom aussi ci sensibilisation bi. ñu joxe quand même euh, respecter les mesures édictées. par les professionnels de la santé. mais mu ngi ci ñun ñi tamit aussi ñu ngi ci. je crois que ñun aussi à travers groupement yi ñu jiitee à travers euh, association yi mm-hmm. ñëpp ñu ngi wax et puis surtout la presse aussi mu ngi def sensibilisation mm-hmm. je crois que euh, Parcelles Assainies moom amatuñu problème mu mm-hmm. sensibilisation wax nga ni beaucoup de choses à dire mooy lu ñu war a wax ci lu bari ndaxam tey fu ñu doon xaaree li nga xam ni nag mais balaa ñuy dugg ci mairie bi proprement dit mais Mamadou Gueye yow acteur de développement nga tey sa taxawaay tey ci jàngoro bi sensibiliser askanu Parcelles tey lan la xam nga bi mbas mi commencé rek avant sax muy jël yenn proportion yu mu am nii. Mhm. ñun on avait eu l' esprit alertement collectif bi nga xam ne moom laa àndal muy CDIPA ma leen di nuyu fii di leen gërëm di leen sant. Mhm. parce que ce sont des jeunes aussi dynamiques nga xam ne parcelle rek moo lay ñor. Mhm. ba mbir mi amee ba ñu toogee waxtaan ñun li ñu njëkkoon a gis. mooy que si société bi y a des yoo xam ne war nañ leen taxawu. mais aussi am na endroit yoo xam ne yu mel ni hôpitaux yi a nii mhm. c'est avec le collectif pour la défense des intérêts mhm. ñu yóbbul ko hôpital Ma Abdou mhm. parce que boobu le préfet bi ma ko jotee nee ma carrément que ñiy recevoir dons tey jii mooy représentant état te Parcelles Assainies c'est le médecin chef ci hôpital Abdou donc ñu yóbbul ko dons yi et je crois que loolu tax na ba ñu bëri aussi jël voix boobu pour jàppale parcelle ñu amaat fa aussi ay femmes leaders yoo xam ne ay jàmbaar lañ vraiment ñoom tamit seen i seen i dons yu ñuy collecté mhm. pour yóbbu ko je crois mhm. que loolu la ñu njëkk a mëne mhm. mais au delà de ça aussi man ak génération originale bi ma àndal def nañ ay dons surtout daara yi avec euh, ah, unité de eau de javel boo xam ne teg nañ ko mais accompagner ko ay madaar donc yóbbul ko daara yi donc ci loolu la nekk je crois que li ñu dese bëreetul mais daal pour vous dire rek ñun suñu rôle ñu ngi tant bien que mal jéem ko def ci askan wi parce que nee ñoom wax ni joxe don waaye itam ñaax askan wi ci ana naka la ni maytoo li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoro bi ba tey yéen a ngi ci. si si moom laa la wax cest di dire que tey jii euh, xam nga li gën a neex rek mooy que tey boo xoolee parcelle Assainies. Mhm. képp ku yeewoo parcelle. xam nga jàngoro ji nan lañ koy amee ak nan lañ koy moytoo. Mhm. parce que y a une bonne sensibilisation aussi bien ci côté mairie bi mais aussi ci côté acteurs yi. Mhm. mais aussi euh, gis nañ aussi ci Sénégal aussi état bi mu ngi ciy surtout les organes de presse. Mhm. ma profité fii pour féliciter leen remercier la presse sénégalaise. parce que seen taxawaay aussi rafet na trop ci mbir mi. tey Sénégal moom muy parcelle muy feneen ku nekk xam nga. xeex bi benn la xam nga jàngoro a insister mais. tey étape bi di ñëw mooy que ñu ngi dem vers des lendemains yoo xam ne. Mhm. nar na metti pour la population. yéen a ngi koy waajal. loolu laa gëm. Mhm. donc ñu ngi koy waajal. Mhm. donc di ñaax aussi institution yu mel ni mairie. ñu waajal ko parce que gëm naa ne tey jii ñu bëri liggéeyatuñu. ñu bëri doon jaay ay champs douche ay fonde pour seen i njaboot tey liggéeyatuñu. donc euh, te entreprise yi duñ ko man mhm. di nga gis ne tey salaire yi dinañ ko wàññi mhm. di nga gis ne tey jii ñenn ñi du leen fay salaire parce que mhm. entreprise yi roulé wul di nga gis ñoo xam ne si li yaakaaroon amatuñ ko donc il faut que tey jii mairie yi taxaw pour prendre le relais parce que loolu la leen di xaare et les bonnes aussi comme ni yeneen mairie yëpp ñu ko defee am na ñoo xam ne ñu ngi génnee seen koppar ngir xeex ak jàngoro bi ndax yow conseiller nga xëy na mun nga ñu ci wax as tuut conseiller bi nga doon ndax tey mairie wu Parcelles Assainies génn na moyen bi nga xam ne teg na ko pour xeex si ak jangoro bi. bon pour l'instant nit da ngay wax as axulaay taala pour l'instant gisaguma vraiment ñu def euh, loolu mhm. euh, loolu sax taxoon euh, ay fan a ngi ci ginnaaw nekkoon na débat mhm. ku mel ni man yëkkati naa ko pour mhm. waxaa maire na ko na woote conseil municipal ah nuñ ko mën a organiser nañ ko organiser pour pouvoir postes yi nga xamante alimenté woon nañ ko ci budget bi ñu def léegi ay virement de crédit pour pouvoir mën a jënd a lekk gu bëri pour mën ko denc. Mhm. parce que dans la vie gouverner c'est prévoir. Mhm. mais malheureusement je crois qu'il y a eu des discussions. Mm -hmm. peut-être aussi man mi ko génne nga xam ne maax maire bi peut-être. Mhm. ñu ngi xaw a jàmmaarloo ci dëgg rek. donc loolu la mais euh, mbir mi tey jii ah nu mu mënti demee. tey rek je profite de plateau bi pour woowaat monsieur le maire Moussa Sy mhm. parce que tey yaakaar naa ne euh, man de bi may dugg fii mhm. sama casquette politique teg naa ko fële waaw bi may dugg fii li ma gëm mooy c'est le conseil municipal qui parle mhm. mais c'est aussi l'acteur de développement l'homme social qui veut parler à son maire et demander scrupuleusement au maire Moussa Sy quel que soit Alpha na woote conseil municipal bi pour que aujourd'hui ñu def ay virement de crédit voté ko jox ko les pleins pouvoirs moom pour mu mën a biir bi denc ko. parce que gëm naa ne weer yi ñuy ñëw dina nekk maire yu métti weer yu métti métti métti. Mm-hmm. ndax li ni mel moom daf ko anticiper wul wala yéen da ngeen posé wul débat bi comme ni nga ko defee sa yeneen nataango yi wala. non xam nga moom laa la on n'a pas eu l'opportunité de le poser parce que defuñu conseil municipal. Mhm. conseil municipal bi ñu mujj def le 3. Mhm. c'était surtout sur euh, benn délibération spéciale concernant li nga xam ne mooy le report à nouveau. Mhm. donc loolu c'est normal at boo liggéey ba pare. sa sa sa kii bu soo nga am déficit wala nga am bénéfice delloo ci at bi di ñëw. donc ñu def jël ay postes yoo xam ne. muy secours yokk nañ ca xaalis mhm. te li nga xam ne mooy participation diverse yokk nañ ko xaalis mhm. sur la base de ce rapport à nouveau bi ñu mhm. am donc loolu yaakaar naa ne tey jii war nañu toogaat poste yi nga xam ne tey dañ ko defoon pour secours ngalax ak secours tabaski secours korité yooyu ñu def ay virement de crédit créer compte boo xam ne day nekk compte covid 19 pour pouvoir alimenter ko soutenir parce que aussi on a euh, suñu budget social loolu la ñu boole ko Mhm. préparer suñu bopp pour les Parcelles Assainies. mbokk yi di leen fàttali rek ni tey moom Mamadou Gueye l'original acteur de développement ca Parcelles Assainies nekk itam conseiller ca mairie Parcelles Assainies moom la ñuy dalal tey ci émission gox bi. mën ngeen ci dugg itam participer ngeen na dugg rek ci 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ba tey ci sensibilisation bi xëy na ni parcelle am na garage fa nekk hôpitaux yi ñu ngi fa soxla nañ dimbal. mais est-ce que tey lu gën a jàmp mooy nekkul wàcc itam ci terrain bi fekk ji ñi nga xam ne ñoom ñoo di acteurs yi ca marché yeeg ca garage yi daal di wax ak ñoom mu moo gën a am solo je pense non je crois que loolu ñu ngi koy def moom laa la wax la sensibilisation fi nga xam ne day rassembler nit ñi. Mhm. je crois que les gens aujourd'hui sont sont très bien sensibilisés. Mm donc euh, loolu moom ñu ngi koy def au parcelle wax naa ko léegi. Mhm. que maire bi avec euh, le service civique national. Mhm. formé nañ fa cinquante jeunes. yoo xam ne tey ñu ngi leen déployer ci ci ci lieu yooyu pour. ñu mën a informer sensibiliser le personnel. Mhm. li am solo rek mooy que tey jii moom leen remarque bi ñu ci def. Mhm. mooy que ñoom aussi bu ñu koy defi aussi nañu respecter les mesures d'hygiène. Mhm. parce que loolu la ñu édicté ku laata digle sangu da ngay cangu. donc loolu bu à part bu ndaw boobu rek je crois que ils sont en train de faire un travail et je les félicite par rapport à cela. maintenant comme on le dit aussi les autres associations nit ñi aussi ñu ngi def li ñu mën ci wàllu sensibilisation. sensibiliser c'est bien. mais tey ji ki ngay sensibiliser mm-hmm. aussi mm-hmm. des na benn moment li muy gën a tal mooy dund mm-hmm. man sama appel loolu la que le maire aussi nga xam ne mu ngi xaar état c'est vrai état c' est vrai mais état lam lay indil du la matal dara. dañuy mhm. puiser suñu premier suñu ressource. Mhm. pour mën a teg loo xam ne tey jii askan wi. Mhm. Euh, dara du ñu bett. parce que ñun nous avons le deuxième meilleur budget après plateau. Ah, ba tax na ngeen war a def itam jéego ngir génne koppar gi. moom laa wax moom laa wax mais xam nga aussi ku nekk da am foo yem. man alerte fi ma yem rek mooy ma ñaan ma alerte parce que foofu laa toll. y' a 76 conseillers. donc je crois baax que tey jii yaakaar naa ne maire bi tey jii vraiment vraiment dinañu woow quelles que soient les conditions wax naa ko on nous parle te tey jii waruñu def ay rassemblement waruñu def ay réunion je suis pas d'accord pas du tout te aujourd'hui on peut prendre les mesures d'hygiène faire une bonne réunion pourquoi pas même ñi nga xam ne ay mag la ñu leen mais ñu def quand même une réunion représentative pour donner au maire vraiment la puissance qui mhm. s'y est mhm. pour que tey jii moom mu mën a jël ay matuwaayam mhm. jënd ay dund jënd lépp li war dugal ko ci biir maire bi ñu denc ko ba pare après ñu def ko de manière transparente bañ ci def affaire militantisme wala affaire politique mais jox ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla parce que foofu lañ ñuy xaare parce que ñu ngi euh, gis nag euh, ci fan yi ñu génn ñu ngi gis waa génération originale bi nga jiite ñoom ñi ngi woon ci terrain bi di eggee ñi nga xam ay ndimbal euh, yow ak say ak sa maigre moyen yaa ngi def kon ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ay koppar ca diwaanu Parcelles Assainies kon itam jot na itam ñoom ñu génn dugal seen contribution ci li ni mel. vraiment ci wàll woowu maa ngi félicité ñi nga xam ne yàlla may na leen te ñu yéene seen askan. Mhm. parce que au-delà man am na ñu fa nekk di di def liggéey bu am solo. Mhm. je peux prendre l'exemple parce que aussi nit buy def lu baax waaw góor du koy gën a yokk. Mhm. ku mel ne Khady Sow mu nga fa di def. li ñuy def démb rek je mu ngi joxe ay ceeb. ay tamit mu ngi fi aussi di def. Mm-hmm. ku mel ni Go Faye mm-hmm. mu ngi fi di def. Euh, tey rek euh, le président Makalu. Mhm. vraiment mu ngi fi aussi di def. Mhm. donc nit ñaa fa quand même am cet esprit là cet élan de solidarité. Mhm. di leen encourager di leen wax ne noonu la. nit ki moom euh, lii nga xam ne wërsëg la bu yàlla teg sa loxo moomoo ko. dafa dajale mës wërsëg wërsëgu nit ñi. teg ko sa loxo soo ko comprendre noonu rek. di nga ko war a delloo nit ñi. parce que loolu la. loxo bi joxe mooy recevoir. te loolu la daal. ba tax na xëy na ni parcelle dafa am popularité bu rëy askan wi fay dafa bari un ba vingt six xam nga nem naam benn parti bi sax ca Géejawaay leen ko dox mais est-ce que affaire yi danga jàpp ni dañ ko war a concentré ci benn secteur rek warul law itam ci yeneen unité yi. waaw mais xam nga kulaataan naam ne fa aussi ah je crois que aussi un ba six si si si si si la bokk mhm. c'est vrai bien sûr c'est vrai mais ñun du ma la làq mhm. ñun suñuy action aussi dafay jéggi foofu parce que un ba six dañ fa am ay mbootaay am fa ay nit mhm. donc on est dans l'obligation aussi ñooñu ñu fekk leen foofu ci li nga xam ne am nañ ko ñu joxe ko di leen wax ne rek à partir tey dimanche euh, ñu bëri dinañ leen jàppale ci wàllu prévention bi parce yi ak ci ci ci centre de santé yi hôpitaux yi mm-hmm. mais tey jii dinañ déclencher pour que à partir de dimanche tey mm-hmm. ñu commencé mbootaay yi di leen jàppale ci wàllu hygiène d'abord mm-hmm. en attendant ñu xool parce que gëm naa ne d'ici deux semaines un mois ça risque d'être un peu difficile la tendance parce que tey qu'on le veuille ou Euh, bato yi dund gi duggatul. Mhm. yu bëri amatul donc euh, il faut que ñu xool. yéen ngeen jug daal mhm. organiser woo. Mhm. wut suñu matuwaay. te denc. pour que bu ñu tolloo foofu rek ñu jàppale ci lu ñu man askanu parcelle Assainies. wax nga foo am solo moo di sëriñ daara yi fan yi sax ñu ngi doon alerté wu ñoom itam euh, la nga xam ne moo jëm seen ndongo yi. Mm. génnatuñ jëm di yalwaan yi tey dañ leen confiné maanaam tëj leen seen biir kër xam nga ko dëj itam da nga koy jox dara comme ni nga ko waxee léegi mm. ci buntu daara yi di leen jox ndimbal mel na ni loolu soxla nañ ko. waaw foofu nag dinaa ci kontaan tuuti parce que dinaa ci féliciter le ministre Amadou Ba. Mm -hmm. pourquoi parce que gis nañ nga barki Dembo Ndiaye joxe yu bari. Mm -hmm. pour les hôpitaux mais aussi muy. grand soobu na ci daal ñu vraiment yoo xam ne fa lañ ko doon xaare mhm. moment bi aussi dafa jot. Mhm. tombé war a ay gaaf. Mhm. ñu koy féliciter mais foofu aussi gis nañ ceeb bu bari. diwlin yu bari sukkar su bari. te loolu lépp. pour les trente cinq daara des Parcelles Assainies la mhm. c' pour que dire parcelle am na chance boo xam ne mhm. euh, ay ñi nga xam ne ñoo ne ci kanam fàtte ñu leen benn yoon mhm. donc pour daara yi moom dañuy gën a yokk rek mais gis naa ne daal incha allah euh, ku mel ni Amadou Ba lu mu def ñeneen ñi aussi li ñuy def boole seex lu ñu def ñun xam naa ne daara yi aussi buy metti aussi dina gën a mm, oyof ci ñoom Mhm. xëy na parcelle ak ay nomba tànkam ñi nga xam ne am nañ fa nomba tànk ñi itam ci euh, dégguñu leen ci euh, mbir mi kon itam da nga jàpp ni jot na itam ñoom it ñu génne wane seen bopp si askan wi. waaw moom laa la wax xam nga aussi mooy li ma wax rek ku nekk daal yaa ngi yaa ngi yaa ngi daw de gauche à droite. Mhm. parce que aussi ñi yor ndam ba tànk si seen doole fi mu fi mu fi mu yem. Mhm. gis nañ leen aussi ñu def ay action mhm. mais pour man sama xalaat laa wax doyul. tey jii euh, laxasaayu rek comme ay Baay Faal. surtout bu la askan wi joxee seen kàddu. bu fekkee ne askan wee tax aussi ñu jox la ndomb tànk. tey jii jot na tey nga delloo njukkal askan wi. donc man ku nekk rek. Mhm. na nga dem fa nga war a mën a demee. Mhm. fa nga ko yaakaare indil ko Parcelles Assainies. Mhm. donc foofu la daal. ok dañuy wax ci benn parenthèse parce itam gox bi loolu tamit nekkoon na benn pàcc bu yaabuñ ubbi woon ngir waxtaan ci mais bu ñëwee ci goxum parcelle Assainies parcelle ba mu sancoo ba tey yàgg na waaye la nga xam ne nag moom moo jëm ci ay problème mbirum assainissement jigéen ñi nga xam ne nag dañuy toog te duñ leen jàppale ci nga xam ne moo jëm ci wàllum ndimbal. bëri na ay association yu nga xam ne nag ñu ngi jéemal seen bopp ku ci mel ni association yu bëri te indi unité 7 am na ñi nga xam ne nekk nañ fa ñu ngi demal seen bopp waaye li ñu jëm ci wàllum assainissement dafay indi causer problème bu bëri ca Parcelles Assainies waaw xam nga assainissement bi moom vraiment problème mu parcelle la xam nga parcelle en réalité ni mu juddoo la ak ni mu màggee. Mhm. tey law la euh, canalisation yoo fa nekkoon tey valable tul mhm. parce que la population waxuma sax mais la population dafa quadrupler. Mhm. tey ji aujourd'hui tey mais aussi il faut une volonté politique. ok de de de de de la mairie. parce que gëm naa ne Dalifort moo ñu gënoon metti fu. te génn nañ ci Dalifort nañ ci. parce que tey ji am na lu maire ba def. donc euh, ba am ay partenaires am. ba tey jii tey jii Dalifort ku foog c'est comme Paris. Mhm. donc c'est la même chose il faut d'abord avoir cette volonté là euh, vraiment de de de d'innover. cette mhm. volonté là de chercher des partenaires. Mhm. adéquats yoo xam ne tey jii dinañu permettre ñu jóge ci. li nga xam ne mooy euh, problème d'assainissement aux parcelles. parce que gëm naa ne mairie rek mënu ko. te mairie budget am boo ko xoolee bu fekkee ne ci budget bi nga yaakaar pour liggéey doo mës a liggéey. la mairie aujourd'hui c'est coopération. national mhm. international mhm. boo xam ne mooy tax tey jii nga def ay résultats mais boo ko kalee sa budget rek mhm. bëgg lu bëri aussi nga def ko ci ah non duñ dem fenn est-ce itam conseil yi yéen a ngi alerté wàcc ci terrain bi di xool saytu jafe-jafe yi nga xam ne nag moom moo am ca diwaanu Parcelles ah, Assainies. ah non non xam nga ñun yàlla jàppale ni ñu ba nga xam ne am na ñoo xam ne tey jii lu xew parcelle dinañ ko filmer caméra ko dugal ko sur réseaux sociaux yi. Mhm. donc lu xew parcelle rek xam nañ tey xam nañ ne parcelle treize point bàyyi fi ne xam nañ ko. Mhm. xam nañ parcelle jamono yi may wax a yow. Mhm. boo demee tey euh, onze treize da ngay gis ne ndox ma génnaat na. Mhm. ndox moomu génnaat na donc ñun xam nañ bu baax. Mhm. tey unité quinze tey boo xoolee foofu ndox mi aussi sonal na leen trop. Mhm. périodiquement dafay génne. donc c' est un problème boo xam ne c' est un problème général boo xam ne. il faut qu' aujourd'hui la mairie. wut ay partenaires yu baax. ñu mën a jàppale. assainissement aux Parcelles Assainies parce que je sais que c'est pas c'est pas quelque chose de très ñoo xam ne dañuy ñëw vraiment jàppale parcelle pour ci assainissement bi. solution bi tey lu gën a jàmp tey lan la. ci parcelle assainie li gën a jàmp ma wax la ko mooy assainissement. Mhm. tey ku bëgg a liggéey parcelle dëgg. Mhm. da ngay attaquer d'abord l'assainissement. Mhm. parce que tey assainissement bu baax moo tey nit ñi nekk ci cadre bu baax. assainissement bu baax moo tax tey nga mën a def pavage bu jaar yoon. assainissement bu baax tey jii mooy tax bu tawee. taxi boo ne parcelle laa jëm mu bañ. Mhm. day nangu. Mhm. boo defee assainissement assainissement. bu baax ñu ngi commencé nangu sax waaye ci yenn unité yi la. ah non ah dama ne la bu mhm. tawee parcelle. bu tawee taxi pour mu dem parcelle problème parcelle pour mu taxi pour mu jógee Kaas ba dem euh, Dior. c'est extraordinaire. problème la tu nga jaar ci biir. dëkk bi te foo jaar aussi da ngay gis flaque do yi. donc priorité parcelle bu njëkk. c'est l'assainissement. ok y a xëy mi tam problème la xëy mi moom problème mais xam nga xëy bi moom ça devient beneen dimension beneen dimension dimension mhm. nationale la dimension pays africain yi la dimension faible sax parce que mhm. euh, dëkk boo dem rek mhm. euh, problème mu chômage bi dafay tege mais nag je l'ai dit ah je l'ai dit à plusieurs reprises que aujourd'hui nos gouvernants doivent changer de fusil d'épaule tey jii soo nekkee ñu jox la ndomb tànk war na au def benn décret boo xam ne da lay forcer yow nga def au moins benn projet structurant boo xam ne lu mu bon dina jël di Mhm. donc man noonu laa ko gisee mais problème mu emploi bi c' est partout. c' est partout mais gis nañ itam euh, nañ ko wax parcelle am na ay entreprises yi nga xam ne ñu ngi fa est ce que tamit jotul tamit ci wàllum RSE bi tamit ñoom ñu indi yokk seen contribution ci li jëm ci mairie bi. xam nga boo nee RSE. Mhm. donc loolu day fekk aussi ñu am benn style de management. inclusif mhm. da nga jàpp amu fa. bon ci li ma gis amul waaw ñu jiiti foofu amuñu. gis-gis boobu <laughs> gis boobu laa am hmm. gis boobu laa am. Hmm. parce que lan moo la koy woon rek mooy que tey jii am nañu c'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Hmm. soo jëlee suñu équipe fagnon bi. ISPA tey jii waroon na fekk tey entreprise yooyu yëpp dugal ci seen loxo. c'est ce qui se passe en Europe c'est ce qui se passe dans les grands dans les grands pays. donc moo RSE boobu boo ko waxee rek dafay am problème. parce que tey le style de management bi fa am. Euh, taxul tey. du ma ne ñu contraindre entreprise yi. Mhm. mais ñu wax leen seen devoir convaincre leen. parce que mhm. ki ngay convaincre aussi mooy que da ngay teg loo xam ne dafa leer ba mu nangu seet dugal loxoom. Mhm. loolu amul parcelle Assainies gisuma ko daal gisuma ko donc il euh, y a un problème mais je crois que c'est des choses qu'il faudra corriger mhm. tant qu'on ne change pas li nga xam ne moo fi nekk mhm. euh, toujours li la ñuy dundaat rek mhm. honnêtement parlant il faut qu'on change quand même euh, am beneen vision sur la manière de gérer la cité parce que lii gis nañ ko gisaat ko et ça ne mène pas donc loolu la ñuy inviter les populations à se réveiller c'est vrai que ñu bari tey xam nañ ne suñu changé wul Mhm. lii fi ne moo fi newaat mhm. jigéen ñi bu ñuy génn dem Dakar dañuy yor ñaari paire dàll mhm. parce que suuf si bari na donc bu tawee doo am foo jaar tey ji euh, nit ñi gisatuñu seen bopp ci Parcelles Assainies vraiment vraiment nañu wax rek te dëgg du politique mais nañu wax lii am y a beaucoup de choses à corriger aussi est-ce que itam jotul yéen ñi nga xam ni yéen ay génération bu bees yi nga xam ni yéen a génn ca Parcelles Assainies est-ce que itam jotul tey ngeen gën a wone seen bopp yi nga xam ni Euh, ci gox bi naam am na ci biir Parcelles ni waaye doxalin ba fu ñu leen di xaar kon tey ci innovation yu mel yooyu lañ leen di xaar. waaw innovation yi xam nga dañ ne euh, le maire c'est l'édile de la de la cité ah c'est le premier magistrat. Mhm. ñun ax ah, lu ñu am volonté volonté dafa am foo xam ne fa la ñu mën a yem. Mhm. lu ñu am am volonté tey jii dafa am foo xam ne fa la ñu mën a yem. Mhm. li ñu mën rek mooy bu ñu amee lu baax. ñu indil parcelle. Mhm. suñu gisee loo xam ne buñ ko defee mën na jëmale kanam parcelle ñu waxtaan ci en conseil municipal wax ko maire bi. Mhm. mais toujours la maire moo yor maire moo mhm. décision wu politique bi. donc loolu daal moo ñu sonal. ba tax na tey jii ñun. gëm nañ ne tey jii jongante yi ñëw dinañ ci bokk. Mhm. gëm nañ ne tey jii ku bëgg dimbali parcelle. Mhm. il faut que tey jii ñu changer li fi ne. Mhm. parce que on a besoin de cette signature et de ce fauteuil là pour pouvoir mieux aider les Parcelles Assainies yi. wax ci beneen euh, diwaan rek ji nga xam ni moom moo di jigéen ñi naam yaa ngi koy def ci GIE yi di leen jàppale di leen suqali ko pour ñu jug ñoom itam ñu dimbali seen bopp yaa ngi koy def ndax dañu jàpp ni euh, wàllum formation bi itam ci la mais ñun ñu ngi formé macha allah ñu ngi def formation yu bëri ci jigéen ñi. Mm-hmm. je crois que tey corona bi sax moo xaw a euh, arrêté mbir yu bëri. mais parce que ñun loolu lañ gëm ah aujourd'hui mhm. développement Sénégal mhm. dañu yaakaar ne ça doit commencer par la base mhm. parce que tey bu fekkee ne kër gi famille bi ñoom euh, am na lu ñu sukkandiku rek gëm nañ ne dafay yéeg ba dafay atteindre par euh, Sénégal mooy que tey ji jigéen ñi ñoo yor kër yi entre guillemets parce que ñoom ñooy daw de gauche jigéen ñi bul leen formé wutal leen ay métier tey jii dina tax kër gi gën a naat te si loolu la ñu nekk donc ñu ngi formé jigéen ñi ba tey am na ñu bëri ñoo xam ne ngi demal seen bopp wàll woowu. Mhm. donc tout ce qui est transformation. yéen a ngi leen di jàppale ci voilà ci yenn initiative yi on les offre mhm. tout. Mhm. ak aussi bien les formatrices. que aussi les intrants. lépp duñ koy mettre à leur disposition former leen. bénévolement. tey jii da gis ñu bëri tey jii ñu ngi produire seeni mbir di ko jaay. Mhm. donc loolu la. ñun mhm. je crois que loolu nit ki danga koy jàngal na muy nappe. Mhm. moo gën chaque jour nga bëgg ko may jën. am na solo kon Mamadou Gueye la moom moo nekk euh, jiital génération originale nekk acteur développement ca diwaan Parcelles Assainies nekk suñu gan tey. mais fan yi ñu génn seen collectif am na benn collectif bi ngeen taxawaloon di xeex wàllum bourse yi kenn parcelle bi yëpp jaxasoo naan lu xew lu xew lan la lan moo xewoon dëgg-dëgg ci problème bourse yi. waaw xam nga problème bourse yi dafa am lu yéeme loo xam ne moo amoon Parcelles Assainies. Mhm. man mii di wax yow bi affaire bi di am di exploser man ma ci réew mi. Mhm. mais ba ñu ñëwee càmbar ko xam na ne aussi lii lu wér la. Mhm. lii kenn mënu ko naataable muy nju njaaj gu am. ci biir mairie bi. donc bourse yi ñun dañ koy maye au Parcelles Assainies gratuitement ça fait des années. Mhm. bañ nañ ko sax ba yenn communes yu bëri dañ ko copier woon. Mhm. di ko maye. donc mhm. euh, bi ñu gisee ne tey ñoom ki nga ki ko jiite. mu directeur de cabinet maire. moom en réalité moom moo jiite woon aussi euh, li nga xam ne mooy la division éducation et formation. bi mu gisee ne lii ñu ngi koy maye te am na doole. donc imputé na ci créé ci benn société mhm. te nee na lépp maire bi yëg na ko mhm. donc di laaj boo yi ay cinq mille francs ay mhm. dix mille te li ngeen xamul mooy bourse boo xam ne accordé nañ ko mu dem ci université ba rek wala école boobu école boobu dafay yónnee dix mille francs ristourne mairie bi donc loolu lépp mu doon dal ci gafaga euh, euh, ki nga xam ne mooy directeur de cabinet te ku ne directeur de cabinet aussi xam ne maire bi mu nga ca te lii gën a doy waar mooy que aussi suñu locaux directeur de cabinet mhm. mais aussi muy suñu salle de délibération fa la doon liggéeyee seen forfaiture yooyu yëpp mhm. donc loolu moo fa am mhm. donc ba ba mu amee coow nag seen biir loolu génn ñun suñu mission mooy que dëgg la ñuy doxee dëgg la ñuy taxawee ñu jógee bitim réew ñëw noom saytu ko xam ne lii lu wér la mais ñu jël position taxaw parce que tamit euh, mbir mi daal dafa doy waar de trop donc moo tax collectif boobu juddu woon pour euh, les intérêts de parcelles ba tey ji aussi ñu ngi Euh, malheureusement euh, corona bi aussi yeexal na lu bëri. Mhm. mais ñi war a liggéey ci miro ci wàllu yoon liggéey nañ ci. Mhm. mais xam naa ne c'est un dossier boo xam ne tey jii dinañ dem ba mu jeex takk. Mhm. parce que nag nee nañ alalu parcelle ku ci teg loxo di nga ko génne. parce que tey. la tendance politique a changé dans ce pays. Les jeunes doivent se hisser comme des boucliers. pour vraiment astuut bi nga xam ne askan wee ko moom ñu delloo ko askan wi. Mhm. kon mi ngi woy mbir mi ngi woy yéen a ngi tamit continuer def seen investigation ba tey. bon euh, boo xoolee mu ngi woy ah, parce que mhm. ñun suñu avocats yi ñu ngi ci ah. je mhm. crois que maire bi ak directeur de cabinet am na leen. ay sommation interpellative mhm. je crois que le directeur de cabinet il a eu a parler mhm. mais maire moom dafa daw dafa daw ba noonu ah, lañ ko consigné mhm. noonu lañ ko consigné ci ci ci ci sommation yi donc euh, affaire yi avocat yi ñu ngi ci ñun dul leen bàyyi tant dëgg jibul te dëgg bi xam nañ ne mooy leen doon def teguñu ko ci yoon moo tax ba ne leen huub huub ñu bàyyi ba nga xam ne jouru gàmmu bi la pour génn OPEF boobu ci biir mairie bi yóbbu ko ci ba yeneen i locaux. Mhm. donc loolu dafay war na rek euh, njombi gi rëy na daal. Mhm. mais am ñu ne parcelles yéen collectif bi da ngeen di maye bourse itam. ah xam nga. àddina voilà ci yenn anam ngeen koy maye. parce yéen a ngi wax mairie bi naan mi ngi maye bourse. yéen itam ngeen mairie bi mayol da doon jaay. Mhm. da doon wecceeku waaw di wecceeku ay bourse comme ni nga ko waxee. mais yéen itam ngeen di euh, euh, def beneen wàll bi di joxe ay bourse loolu naka la mën a demee expliquer ñu tuuti. xam nga bi ñu gisee senegal dafa am ñu fi nekk ñoo xam ne. Mm-hmm. bëgg dañu bañ injustice donc nit ñi bi ñu gisee li ñuy xeex di ko jàmbar mm-hmm. te ñoom ñu nekk ci secteur boobu mm-hmm. euh, donc am na ñoo xam ne tey dañu yor seen i seen i seen i organisme di def loolu donc gis nañ ñu ci sama yenn relation yi ne nag li ngeen di combattre ñun xam nañ ko bu baax ba tax na tey may nañ leen temps de bourse mhm. gratuitement pour ngeen maye ko gratuitement xale yi parcelle te amul lenn lu ngeen ci laaj amul un franc je ñëw yëpp ñu may leen te sori nañ ci bu baax a mhm. du un franc boo lay laaj mhm. donc yenn saa sax boo ñëwee amoo xaalis sax pour def sa photocopie sa carte yi la laaj je crois fa ne sax ñoo lay jox nga dem photocopie kon donc mbirum transparence ngeen fay dawal dëgg non foofu sax amul transparence asalaamaaleykum. bi. waaw ah, ñu ngi sant bi baax tur bi ak foo ñuy woowee soxna si. man la Ndeye Yacine Seck dëkk Interset présidente groupement Femme Unique. jërëjëf Femme Unique ñu ngi lay déglu bisimilah soxna si. waa ja ñu ngi lay di la ziare. di bañ émission bi rek. Mhm. ngeen sori. Mhm. waa nga nga invité ku mat invité nag. Mhm. ku parcelle bàyyi xel. macha allah muy Mamadou Gueye l'original ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam. lépp lu président santaane rek ci feebar bi moom mi ngi ci liggéey bi bu yàgg. Mhm. avant mairie bi di ci jug wala kenn moom mi ngi ci doxal. Mhm. di ci liggéey di wax nit ñi niñ koy maytoo. Mhm. di ko teg ci yoon di jël alalam di ci def. ndax macha allah boo ñëwoon sama kër gi tey group rëcc na mi ngi doon wax lu am solo mel na ni kon GIE bi ñoom am na luñ jot. moom laa la wax mu GIE yi may gën a liggéeyal donc ñoom jot nañ seen i dotation. Mhm. ba tey jii war nañ ko séddale seen i membres. Mhm. xam naa ne suba aussi GIE yaakaar bokk. Mhm. jor soo jiite ko ñoom tamit pareil. et ça va un peu continuer si GIE bi xam ne ñu ngi liggéey ñoom mais au la de GIE yi toute la population fépp foo xam ne daal. yaakaar nañ ne war nañ ko fa yóbbu incha allah dina fa dem. incha allah ñu parcelle ne leen jox leen ay bourse ngeen ni maye askan wi parcelle te laajoo leen ci dërëm ndax yomb na yomb na yombul looy dafa xool rek dafa yomb parce que sa borom moo la ci wàllu mhm. mais yombul aussi parce que aujourd'hui tey dem jël nañ ay bureau mhm. di ko def heureusement mooy li ma wax rek yàlla li muy def mhm. donc ñu amaat beneen euh, vraiment organisme bu gën a am doole boo xam ne ñëw na ba tey ji vraiment au-delà de euh, mes bourses sax ils nous accompagner dans mobilier bureau yi mais aussi proposer ñu benn salon bu mag pour l'orientation pour les élèves et étudiants dans des parcelles. Mm-hmm. te dinañ former aussi ay ndaw yoo xam ne. Mm-hmm. Euh, yóbbu leen ministère pour ndaw yooyu. Mm-hmm. mën a def orientation. xale yi bu baax tàggatu. pour non seulement gérer les bureaux. mais aussi euh, jàppale xale yi parcelle. parce que ñu bëri dañuy am ori problème orientation. pour mën a continuer seen i études. donc yàlla rek mooy teg loxoom ci mbir. parce que looy def si xol bu rafet rek. Euh, yàlla dala ciy fekk. c' est l' pour me féliciter carrément encore le collectif. Mhm. nga xam ne ñu si bëri. Mhm. Euh, bu nu xëyee fa la ñuy nekk di mhm. jàppale xale yi. mais am na ñu si bokkul ay parcelles nekk ay kàngam xaw nekk ay kàngam kàngam tuuti. waaw waaw mhm. moom laa wax. Mhm. non déjà c'est c'est les parcelle dinañ may nag ñu dëkkul parcelle. Mhm. mais ñi nga xam ne focus bi daal c'est les si ni ñi fa ne aussi ci bureau yi le font bénévolement. ñun ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey bu nu wàccee ñëw. donc jàpp ci liggéey bi donc euh, lépp rek ngir. Euh, euh, injustice bi nga xam ne ñu ngi ko doon. subir jeunes yi. ñu effacer injustice bu jur mbégte. mu jët mbekkee noonu la àddina mooy loolu góom boo ko fajee ba pare da ngay wér donc góom bi lañ doon faj def nañ ci alcool mais gome bi mu ngi wér. Mhm. te gëm naa ne très très prochainement ils vont fermer boutique. Mhm. ils vont baisser pavillon. parce que euh, ils ont complètement mhm. euh, travesti li nga xam ne moom lañ doon mais gratuitement. et li ñuy ñaan aussi mooy que équipe bu bees bi di ñëw ci mairie bi que les mu delluwaat ci biir mairie bi. parce que suñu vitrine la. mairie parcelle day maye bourse. mais pas mairie parcelle dafay jaay bourse. alors ñu ngi woon ci diwaan bu am solo mooy wàllum éducation ñuy jël mbokk moom nekk ci ligne bi d'abord asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk mi xëy na rëcc na ci ñu woon ci mbirum éducation bi ak corona bi. Mm-hmm. xale yu bari ñu ngi ci seen kër yi. GIE euh, wala euh, génération originale ñëpp xam na ni moom day jël les choses. Euh, da koy jël ci kanam da koy anticiper mm-hmm. ndax yaa ngi prévoir ay yenn action yoo xam ne ngir xale yi continuer seen éducation yi nga xam ne seen jàng ci euh, l'école yi ñu bu ñu demee rek reprendre ñu bañ a sonn waaw xam nga difficulté majeure bi ne foofu en réalité ce sont d'abord les parents. Mhm. te loolu je crois que GIE yi ñu ngi wax ak ñoom ba tey ñi sax yaa a une communication boo xam ne. Mhm. présenté war na ko def ci ay njoñom. Mhm. jigéen ñi pour wax ak ñoom pour que xale yi. c'est vrai que téye leen dina metti mais au moins ñu xool na lañ leen di téye. tey je félicite yenn organes yi nga xam ne tey ñu ngi joxe ay cours. Euh, ci ci ci ci ci télé yi. pour xale yi mën ci jëfandu. donc loolu problème bi c'est un problème de management au niveau de la maison. Mm-hmm. tey jii loolu rek la ñu mm-hmm. parce que man chaque jour damay wax ak xale yi mm-hmm. parce que da ngay jékki-jékki dégg leen ñuy foo di football di wax et mais boo leen conscientiser rek dañuy gis ne dañuy daw dellu seen kër même si c'est momentané donc li ñu mën rek mooy wax ak jigéen ñi waxtaan ñoom pour que tey jii ñoom vraiment ñu nekk les relais aussi bien de l'État mais aussi des responsables politiques et surtout de ñi nga xam ne ñoo suñu kaaraange parce que moo nga xam ne am na solo lool ndax xale yi bàyyiwuñu leen rek ngir ñu toog seen kër ndax dafa am lu xew moo tax ñu euh, wax leen ñu toog seen kër xam nga bu dul woon li nga xam ne dañuy bañ regroupement tey jii y mm-hmm. avait la possibilité mm-hmm. regrouper di leen jox ay cours mm-hmm. parce que les gens sont mais aujourd'hui loolu la ñuy bañ koy bañ donc c'est un peu difficile donc chaque parent rek doit prendre la pleine mesure de ses responsabilités donc loolu la rek sa njaboot man moom sama kër ñëpp xam nañ ne ñu bëri waaye jël nga matuwaay yooyu lu leer moo lay dugal sama kër. Mhm. parce que loolu la c'est le sens de la responsabilité ku nekk rek na nga yaaq nga xam ne ne yaay sa police bopp. Mhm. yaay sa président sa président bopp yaay sa docteur bopp. Mhm. jël say matuwaay say matuwaay bu ko ñëpp defee rek. du ma ne dina am ñu ne ci mbedd mais dina wàññeeku lu bëree bëri. Guèye l'original ah, alors dañuy wax rek ci li nga xam ni moom moo jëm ci mairie bi yow nga ne tey da nga am ambition jiite commune wu Parcelles Assainies tey Guèye. est-ce que wax ko rek euh, yombul itam lan ngay teg ci loxo waa parcelle ba mun a taxawal projet jëmmal projet bu mel noonu. non xam nga en réalité wax ko wax ko c'est vrai wax ko yomb na. Mhm. mais nous on essaie tout le temps de mettre sur la table des actions yoo xam ne. Mhm. parce que tamit boo toogee ba ne da ngay laaj il faut nga prouver sur le terrain. Mhm. donc ñun loolu lañ gëm. nga baal ma sax déggoon nañ fi ay tournées yi nga xam ne yaa ngi ko doon def ca diwaanu Europe euh, yooyu yëpp euh, est-ce que nekkul pour tiital maire bi la voilà. non non xam nga en réalité man li ma gëm ba gëm ñun. Mhm. yàlla jàppale ni ñu suñu focus dëggantaan du ay du ay maire quoi mhm. suñu focus dëggantaan romb na ay maire. Mhm. mais tey jii tey jii dama ne. Euh, neew ñu fi pour tiital kenn. vraiment liñ fi nekk rek mooy que tey jii. suba bu ñu nekkul maire. ñun dañuy continuer parce que wax naa ko. ñun dañu am suñu métier. dañu am lépp lu ñuy def tey jii dañ koy xeex. matt fii. ñafe teg suñuy business affaire yooyu. moo mhm. tax ñuy jàppale askan wi. Mhm. donc ñun être maire ou ne pas être maire. Mhm. du loolu moo ñuy bloqué. mais li am solo boo gisee ñu ne ñun nag. tey fi ñu toll nii. te askan wi sax ñoo ko laaj. bëgg nañ jiite maire c'est pour avoir la signature. c'est la signature qui nous intéresse pour pouvoir mieux aider les tey ji am na yoo xam ne tey war na dugg parcelle. mais j'ai des difficultés énormes. mooy lan mooy lan ah non tey ji boo amul boo amul benn signature boobu noonu. c'est très difficile. Mhm. de mieux aider sa commune. Mhm. donc loolu moo ñu ci dugal mais du du du du vraiment pour non non non ñun on des maires. ci mhm. ni ñu toogee nii parce que conseil municipal lañ. donc projet bi tey comme concrètement lan la. projet bi mooy jëlee parcelle ci banlieue. kon nag jàpp mu ngi ci banlieue. ba ah tey ñu ngi ci banlieue dafa des ñu ngi ci banlieue tey jii euh, parcelle amul benn euh, infrastructure bu fonctionnel. Ah non non non. ñu ngi ci ñun sax banlieue moo ñu tane parce que banlieue seen i doom ñu ngi football seen i stade. Mhm. seen i doom ñu ngi am ay maison de la stade bi commencé na génn de mm, waaw boobu il a fallu ñun ñu xeex ñu ñëpp ñu xeex au la de man mais aussi association sportive yi ASC yi ñëpp xeex mhm. pour stade bi am amadu Ba ñëw avec l' du Sénégal mhm. am na mu mel alors que ça devait pas se passer comme ça un projet boo koy def da mhm. koy def de A à Z mhm. donc loolu la parcelle amul benn infrastructure boo xam ne tey ji mhm. man nga ne lii mu ngi parcelle Assainies qu'on le veuille ou pas bi fu mu toll c'est la première commune du Sénégal on a de cent millions d'électeurs suñuy électeurs sax moo ëpp Fatick électeur hmm? donc on doit nous respecter les Parcelles Assainies kon jot nañu jubbanti taxawaay bi c'est une obligation kon ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi nga def. man la Yacine Seck maa ñëwaat rek. waaw Yacine Aca ñu ngi lay déglu. waa di dégg rek ci invitation Mamadou Beye. Mhm. di ko wax groupement parcelles yi moom amuñu fayu Mamadou Beye. Mhm. ndax moom moo tax ñu sentir ni euh, parcelle groupement yi am na fi. Mhm. ndax lépp lu mu xewle mi ngi dugal groupement yi seen biir. Mhm. di leen dimbali ba ci affaire feebar bi ni mu demee groupement bu nekk. Mhm. lépp loo xam ne ndax set da ci am solo. Mhm. lépp loo xam ni war nañ koo jëriñoo pour set mi ngi defar propre moyen. di ko dimbalee nit ñi. ci côté eau de ci côté madaar. côté saabu jox na ko presque parcelle yëpp. macha allah kon ñun dañ koy ñaanal yàlla bu baax. yàlla dëgër ko ndax joxe si sa alal dafa metti surtout nag si loo xam ni. yaa ngi liggéey ndax xam nañ ñëpp xam nañ ci parti APR la bokk. Mhm. waaye amu ci benn poste. Mhm. waaye lépp lu muy yor ci wërsëgam mi ngi ko ciy def. kon mhm. buñ ko invité. ñu ciy waxtaan war nañu dugg ñun ñii groupement yi nga xam ni. ñoo bootu ci ginnaawam. comme femme unique nii. ndax invité woon nañu ci rajo boobu waaye groupement yooyu yëpp ci ginnaaw Mamadou Gueye lañ bootu. Mhm. di ko jàppale mu ànd ak liggéeyam di liggéeyal président Macky Sall di liggéeyal coordinateur parcelle. Mhm. kon ñun dañuy rafet lu invitation bi def di ko félicité bu baax bëggee nañ. Mhm. xaaral ma paas la fii. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu baax ni na ngeen def. ñu ngi lay sant bu baax. ah mais monsieur le journaliste tey invité ko mat a invité nga un grand maire. jërëjëf. Mhm. parce que euh, un nom social aussi. Mhm. parce que da nit ki nga xamante ne man je n'ai jamais fait de la politique. waaye mhm. moom moo tax ma dugg ci. parce que dama gis lu muy dimbale nit ñi. man je me nomme Daouda Sakho. j'habite les Unité bon dama à cheval entre sept ak onze. mais ak jàmbaar la. dimbale waa Parcelles Assainies la. mi ngi éducation. mi ngi ci développement bi. Mhm. mi ngi ci xarum tabax yi. Mhm. mi ngi ci ganaar yi. Mhm. mi ngi ci secours yi. te daal moom ko baax si waa Parcelles Assainies la. te dara ñaanal la. ñun ñëpp doon œuvre ni moom la muy def. parcelle dina jëm kanam. parce que ku jël trois cent quarante sept xale xarafal leen te doole bopp. Hmm. joxe six cent quarante six cent cinquante neuf verres. donc kon kooku ku jar a jàppale la. parce que parti bu mu nekk. Mhm. di APR. Mhm. wax nañ koo jàppale. Mhm. Amadou Ba. non au lieu de Amadou Ba mais Amadou Ba. war na koo jàppale moom moomu aussi parce que kuy jàppale waa Parcelles Assainies la. waaw Mamadou Gueye moom très sérieusement man yàlla tax may wax parce que dépassé naa cinquante ans. donc li may wax lu ñu dëggu lay nekk. li may ah. wax sama ba baa may la tax ma koy wax. am na solo. moom bokkul ak maire Parcelles Assainies bu fi nekk sax moom la muy def maire ba defu ko. Hmm. ndax moom dooleem lay jël te maire bi xaalisu Parcelles Assainies lay jël def social. Hmm. mais moom xaalisu boppam lay jël def social. Hmm. donc daf nga xamante ne suñu jar a jàppale la. jërë ngeen jëf. merci beaucoup xaaral ma jox la militant bi. Uh-huh. mu wax ak uh-huh. sant euh, euh, balaa ñu continuer waxtaan bi rek balaa euh, ñu continuer waxtaan bi waaw allo. waaw salaamaaleykum sëñ bi. waaw ñaari ñaari minute rek euh, lan nga ñu mën a wax ci Mamadou Gueye. waa ñu ngi lay nuyu di la ziar man la Asma Diagne. Mhm. allo. allo waaw ñu ngi lay déglu Ada. waaw ñuy sant nag. Mhm. di gërëm say ñaar. Mhm. bon. malheureusement xëy na wax ji nag moom moo war a gën a am solo lii ma ah. Mamadou Gueye yéene Parcelles nii mm-hmm. je pense que moom moo gën a am tey euh, solo waaye itam mm-hmm. waaw góore itam dafa baax ci euh, li ni mel noonu lañ koy waxee ci waaw waaw moom lañ wax waaw góor baax na waaw mm-hmm. mais mais mais ñoom xam nañ parcelle xam nañ li ma yéene parcelle ëpp na ëpp na ëpp na li ñu def parce que nee naa leen defaguñu commencé guñu parce que ñun noonu la ñu yare noonu la ñu tàggate daal ñun moom laa wax saa bu ñuy def dara rek dañ ciy kontaan dañ ciy bég mhm. parce que ñun yaakaar nañ ne daal mhm. di amal sa askan mhm. sa communauté mbir moo gën daal ñun loolu la daal on est fier de ce qu'on de faire et on continue redoubler d'efforts pour gën a jàppale Parcelles Assainies te yàlla rek a tax Mamadou Gueye ñu bari dañ ne Parcelles Assainies yow Amadou Ba moo nekk sa ginnaaw xaalis boo joxee rek Amadou Ba moo la ko jox pour nga joxe ko ndax ni ngay dëggal la wala yow yaa ak Amadou Ba liggéey leen boole Amadou Ba peut-être mu ngi may dégg wala ñii ko jege dégg ñu ngi may dégg Amadou Ba day je crois que mos moo jox 1000 francs ne ma defal lii. yàlla seede na loolu. Mhm. Euh, man xol laay demee rek ak yéene ak samay bagages. Mhm. samay xar matt. Mhm. parce que ñi ma xam dëgg. xam na ne su ma paree sama liggéey maa ngi ci kër euh, ñi yàlla may teraanga. di xar matt xar matt daal ak samay propre affaire yoo xam ne. dama ko yàgg investir depuis ma door. donc euh, samay propre affaire daal laa yor. di ci jàppale. askan wala nga jàpp ne ñuy wax loolu yàq leen tax a jóg. non ñi Parcelles Assainies yëpp xam nañ. xam nañ ne man ak ministre Amadou Ba li ñu seq mooy APR te li ñu seq moom ci boppam xam nañ ne mosuñu maa jox mille francs dama defal lii. Mhm. ñoom loolu xam na duma ñëwaat ci ci loolu. Mhm. li am solo rek mooy que naw nañ Amadou Ba bu baax a baax bëgg ko. Mhm. parce moom aussi ni ñu mel la mel am na xol bu rafet te yéene na Parcelles mhm. donc loolu man nag dama doon nit koo xam ne bu dëgg jotee ma wax ko mhm. soo doon teg paaka sama put rek dinaa ko wax mhm. mais loolu la mais Amadou Ba ñëpp xam na ne man lépp a def Parcelles Assainies presse bi taxaw c'est au nom du ministre Amadou Ba bañ naa ko bu foo tourner rek dañ naan le poulain de Amadou Ba waaw fa may liggéeyee fépp donc loolu li am solo rek moom laa wax mooy que ku nekk rek ca la nga man rek indil ko sa askan parce nee naa leen àllaaxira fii lañ koy liggéeyee affaire leex jàpp rek mhm. wante affaire bi aussi euh, mooy jàppale sa askan les bons mhm. loolu mooy tax martaba yi gën a kawante fële loolu la ñu gëm mhm. alors ba tey euh, Parcelles Assainies euh, fi ñu toll yaa ngi ko doon wax léegi junju infrastructure yi naam stade bi xar kanam bi génn na waaye lu waroon génn la lu yàgg yéen a ngi ci doon xeex boobaak léegi nda mën nañ jàpp ni am nañ am ngeen satisfaction ak ñi nga xam ni toj nañ seen euh, bërëbu liggéeykaay ci Parcelles Assainies xam nga foofu ñu bari nag daal nañ ma interpeller parcelle naan ma ñoom liggéeyatuñ ndax stade bi bañ ko daanalee am na ay commerçant yi doon liggéey foofu. Mhm. tey li ni mel métti na si ñoom itam. métti na trop. tey yaa xam nga si ay nit de. bu baax a baax kii mujjee woote noonu def na fa dix neuf ans lépp lu mu am ci loolu la ko amee. waaw parce que moom moo yoroon tout ce qui système reprographie foofu donc euh, c' plus de trois cent et quelques personnes yoo xam ne. Mhm. jëlee nañ leen fa te li ci gën a doy ci waar mooy que indemniser ñu. ñi moom place yi ba léegi indemniser alors que nous on l' avait voté en conseil municipal on avait dit qu'on va indemniser aussi bien les propriétaires parce que mhm. de l' accompagner ñi nga xam ne ñoo fa locataires yi. Mhm. parce que boobu ñu ngi jub tabaski. Mhm. et on avait dit que du leen bàyyi noonu rek. Mhm. na leen may. mais aussi accompagner leen deux trois quatre mois. Mhm. de location. Mhm. pour ñu mën a wut feneen. mën a connaître cette activité mais dara mu jiwul fenn. Mhm. et c' est ce qui est vraiment aberrant. parce que aussi. je crois que nit ñi dañ leen war a jàppale. yërëm leen. parce que am na ñoo xam ne tey ndomb tànk bi ñu yor nit ñi leen ko def. donc da leen war a delloo njukkal jaamu leen te yàlla rek a tax. donc loolu la mais c' est extraordinaire ce qu' on vit au Parcelles Assainies. xam nga nit da nga am le courage. de dire ce qui fa xew mhm. du kenn koo xam ne indemniser nañ leen mhm. yàqal nañ leen mhm. ñeen ñi sax am na ñoo xam ne dellu nañ seen i dëkk mënatuñu dellu ñëwaat Dakar muy lu métti loo xam ne mu ngoogu daal ñàkkul ni itam dinañ fi dalal ki nga xam ni moom moo di bokk meelu bokk melu Parcelles Assainies di Moussa Sy du gaaw a ñëw du gaaw a ñëw ah, ah, ah, lu tax nga wax loolu dama ko gëm rek dama gëm ne Moussa tey ji amul argument parce que li ñuy wax aussi dëgg la du gaaw a ñëw la lan lay tegal fii toj gars yi indemniser wu leen loolu la lay wax. Mhm. alors inauguré fi depuis <laughs> les sept merveilles yi ma promettoon douze ans du benn inauguration bu ma def yooyu la la mën a wax. da nga jàpp ni Moussa dafa lajj ci mandat am bi. non Moussa waxuñu la si ma ñaari mandat bi dafa lajj bëgg na quoi mais mënul. Mhm. waaw maa ngi koy ñaan a joxe. mu may jeunes yi ñu mos bëgg na mais mënul. na may xale yi ñu mos. Mhm. waaw man sax programme naa incha allah bu yàlla defee jàmm. Mhm. mu tudd ko benn rue foofu. Moussa Sy moom waaw mu tudd ko dénomination rue Moussa Sy quoi. ok bëgg na mais mënul. loolu nga jàpp. loolu laa jàpp parcelle yëpp da ngay ngeen di dugg parcelle def micro trottoir ah, loolu la ñëpp jàpp. Mhm. parcelle dama ne suuf saa ngi bëgg a rey. parcelle du benn infrastructure boo xam ne tey jii toog na ñu def cérémonie inauguré ko. Hmm. ci ñoo xam ne seen budget ëpp na deux milliards xaalis fu muy dugg. ah laaj nañ leen ko. alors donc il faut qu'on se dise la vérité il fait di social ça on le reconnaît mais le social yorul commune tey jii ku feebar tey jii da ngay da ngay da ngay da ngay génn parcelle hôpital ma Abdou yu bëri mënu ko. Mhm. donc y ko beaucoup de choses yoo xam ne de taar yoo xam ne ñu nga fa mais lillahi wa rasuli dañu jàppale parcelle te yàlla rek a tax. et mhm. les jeunes sont là les compétences son là. Mhm. 12 ans ou plus de 12 ans nga def ko on on peut pas sentir réellement ce qui ce, que vous avez fait. métti na. non métti xam nga ba boo waxee ñu ne politique la ah ku du politique des choses que les gens vivent. Hmm. lu ñuy dund la du lu ñu inventé du lu ñu créé. Hmm. tey kenn mënul taxaw ne tey jii euh, salle des fêtes bi ñoo ko inauguré kenn mënul toog ne la maison des femmes. ñoo ko inauguré. Demba Diaby nee na moo ko ñoom ñoo ko. non bi Diaby ville de Dakar moo ko defar quoi il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux te dama jàpp ni amul réalisation bu nit mën a teg ni ma ah, na moi je vais faire après un concours concours ah concours laay def benn jeu benn loo xam ne dañ ko inauguré dañ ko def moi je doon ma ma génn benn montant teg on va faire un jeu concours amul ça n'existe pas ok boo xam ne ñun dañu voté woon quarante cinq millions mhm. ñu defaat un an ñu ne affaire yi machines yi wala ñu voté waat quarante cinq muy quatre yoo xam ne tey jii mbalka la boo xam ne c'est indigne tey jii man man ma fa dem mais keroog ma fa demee dama ne non attention ça c'est pas une piscine une piscine minimum c'est vingt cinq mètres sur dix huit mètres minimum ou dix sept mètres bu xam ne tane na bu réglementaire. Mhm. parce que dama koy dund fa may liggéey on a une piscine pour les pour élèves là-bas. Mhm. donc dafa am yoo xam ne vraiment euh, si maintenant la population va continuer comme ça mais tant mhm. mieux mais aujourd'hui les jeunes ont donné l'opportunité. changer les parcelles assainies. ok il faut qu'on te ñu ci dynamique boobu ñu ci y a beaucoup de jeunes qui sont en parcelles qui sont compétents. Mm-hmm. qui peuvent aujourd'hui changer l'image écornée de des parcelles assainies. Mm-hmm. c'est ça la réalité jàmp na kon. waxuma jàmp mais histoire de survie la comme corona bi rek. Mhm. c'est la même chose. Mhm. histoire de survie la. Mhm. aujourd'hui communes yaa ngi dem bàyyi ñu fi alors qu'on a le deuxième meilleur budget. et la première commune du Sénégal. wax ci wàllum tàggat yaram bi yaa ngi ko doon junj sànq. club bi Parcelles Assainies dem demul dikkul puusul paasul tamit dañ ko wax euh, lan moo sooxe gestion bi la wala. non mais boolew ñu leen ci. c'est clair que gestion bi la parce que en réalité encore c'est le maire je suis pas là pour faire le procès du maire mais c'est le maire mooy buur mooy bumi. parce que am na ñu bëri dañ jàpp buggoon bëggoon nañ ci dugg jàppale euh, club bi mais dañ leen ko bañal. ma ne c'est le président c'est le trésorier c'est celui qui lave les maillots les transports aux joueurs c'est tout. te moom rek mënul. il peut pas il devait même pas rentrer dans ce jeu là suis désolé alors qu'on vote des budgets pour l'USPA et l'USPA tey mu ngi cinquantième division génn na sax division yi am Sénégal c'est ça la triste réalité. tey solution bi kon lan la. la solution c'est que il faut une gestion. Mhm. collégiale aujourd'hui ce sont les équipes qui gagnent dans ce monde. Mhm. quand on est maire aujourd'hui li ma doon wax mas naa ko paraphraser. Mhm. mooy que tey jii même maire yi ni ñuy doxee dafa yow lan nga. Euh, Parcelles Assainies mm-hmm. je donne l'exemple on a mm-hmm. sept adjoints au maire. Mm-hmm. il y a un de mes grands Idi Niasso en France qui disait que il devait pas mais il devait mettre des maires adjoints. et c'est vrai aujourd'hui c'est sept adjoints au maire aujourd'hui on doit même xool nan lañ leen di voler parcelle dañ ko war a diviser. da di nga xam ne chaque maire. unité bu adjoint au maire non chaque hmm. quatre unités ça ça dépend. pour que hmm. les adjoints au s'impliquent correctement. da nga gis ni ñoom seen. ah non non non non non Moussa c'est c'est c'est c'est le dénominateur commun quoi c'est l'alpha et l'oméga des parcelles euh, chaque adjoint au maire ou maire adjoint dafa war am loo xam ne moom moo koy gérer. Mm-hmm. polariser quatre à trois communes. Euh, unités. Mm-hmm. c'est-à-dire que il faut un travail collégial mais le maire ne et nulle part. Mm-hmm. donc loolu on doit même changer texte yi nga xam ne moo régir ni ñuy gérer. Mm-hmm. les communes au Sénégal c'est archaïque. Mm-hmm. et vraiment donc loolu mooy problème bi qu'on le veuille ou pas. il faut qu'on de philosophie. qu'on change de manière de gérer la commune. waxuma la jot na au-delà des parcelles mais ci Sénégal loolu moo ñu tënk. tey Sénégal ni muy doxee mooy texte yi nga xam ne ñu ngi koy appliquer. mais texte yooyu adapté wul tey ci nii addina di doxee. na ñu bari ñuy wax ni. Euh, dama ko war dama koy dégg na gaa di ko waxtaanee Parcelles Assainies ñu ne euh, benn duo moom la ñuy waajal Parcelles Assainies ko ci mel ni Guèye l'original ak Go Faye mu di ay ñaari ndaw yi nga xam ni bu leen Parcelles ngembee mun nañ am dara ma koy dégg ñu koy wax. mais loolu c'est une réalité y en a d'autres mais la particularité entre Guèye et Go Faye xam nga man c'est la génération originale GO. Mhm. Go Faye c'est GO donc ce sont les deux maintenant nag ñu bëri dina leen solal amul problème mais li am solo rek man loolu laa gëm Guèye Go Faye Mambokaar mhm. euh, mhm. euh, mhm. bari nañ Moustapha Kane Makalu bari nañ Xadi Jóob Sow ñoo ñëpp lii am solo mooy que nañu boole suñuy force nañu boole suñuy force pour changer la tendance kay jiitu nag yàlla moo ko xam kay jiitu suñu biir ñu toog ñu waxtaan te ñu jël le meilleur profil que ñooñu ñëpp aussi ñu taxaw parce que ñi ma gis yëpp ñuy jël seen alal. Mhm. di ko def ci parcelle. Mhm. yéene neen parcelle. ok non ñu naxaata taxul leen jóg. Mhm. ñu def benn dream team boo xam ne. tey jii bu buñ ko tegee. mais dañuy dóor mu daanu. bu boobaa nag ñun ñëpp ñooy bokkandoo liggéey bi. amatul ay maire xam nga sax man. am na lu may déranger ku nekk ak sa domaine. bi nga nekk ak sa domaine ak sa domaine. tu es maire adjoint. avec le maire ñëpp àndandoo liggéey. dama ne boo yoree titre di ci nganda ngandalu booba da ngaa xamul àddina. parce que tey boo xoolee Pape Diouf boo xoolee Père Golbert. Mhm. boo xoolee ñi fi ëppoon alal tey ci Sénégal anañu. Mhm. donc dara warul diis. Mhm. donc war nañu boole suñuy force. pour jàppale Parcelles Assainies. woy wi dafay neex après. dafa jot ko mais jot na bu yàgg. mais malheureusement politique moo ñu sonal des calculs politiques. képp kuy toog di def yenn calcul politique yi. politique moo ko jox li mu am. tey bu bàyyee calcul politique yi rek. dafay du dara ci dara ci askan wi dafay dafay réer. ñi nga ah. xam ne ngàllawaay dañu am seen i compétence mm-hmm. jël seeni i alal bu dul politique di ko def mm-hmm. ñoo ñu war nañoo booloo toog waxtaan boole seen i doole mm-hmm. pour que tey jii ñu sauver les Parcelles Assainies parce que foofu lañ toll c'est une histoire de survie survie aux Parcelles Assainies da man de xawma ba xam daj nañ ponk yëpp waaye ab bu fekkee ni am na ci lenn loo xam ne laaluñu ko euh, te waxtaanee waxtaanewuñu ko nga bëgg ko wax lan la li mu bëgg a wax rek mooy que tey par rapport ak situation dëkk bi. Mhm. par rapport ak situation àddina. Mhm. la question que je pose au maire Moussa Sy. Mhm. mooy que tey ji lan moo tax ba tey ji jëndoo dund gu doy. dugal ko ci conseil municipal bi suñu salle de délibération waajal li nga xam ne say naataangoo maire yëpp def nañ ko. loolu lay poser. je dis encore une fois. il faut qu'on n'assume nos responsabilités moi je fais partie du conseil municipal mm -hmm. et demain je dois rendre compte comme mm-hmm. ni ko maire di rendre compte mm-hmm. tey jot na tey parce que des na benn moment doo ko gisati mm-hmm. day am pénurie qu'on le veuille ou parce que tendance bi dañuy dem vers des yoo xam ne leer ñu ngi ah, ci guddi guddi guddi gu bët setagul donc loolu laay wax tey nañu génn alal nañu jënd lekk bu doy parce que alalu Parcelles Assainies la nañ ko denc nga xam ne jimmi jamono dans deux semaines trois semaines. Mhm. nar na metti mhm. parce que tey ñii nga xam ne entreprise ñu ngi leen di fay te liggéeyuñu. Mhm. mois bi di ñëw. ay moitié salaire la ay soixante dix pour cent wala ñeneen du leen fay. ñi nga xam ne ñu ngi doon jaay lekk naan. guddi gi ñi nga xam ne ñu ngi doon. taaba taabal maçon yeex mécanicien gisatuñu dara nañu waajal loolu gouverner c'est prévoir on a le meilleur budget c'est le moment de montrer à la face du monde qu'on a un des meilleurs budgets du Sénégal mhm. loolu daal mooy appel bi mhm. ñu jël politique ñu teg ko fële mhm. jàpp ñu ñëpp te lool laa doon wax aussi monsieur le maire te aujourd'hui toutes les forces vives de Parcelles Assainies da nga leen war woo ñu toog autour d'une table tey jii képp lépp loo waroon jàpp nit jàpp ko dañ ko teg de côté nañu def une équipe pour survivre parce que corona bi lii fi nekk mooy nañu survivre daf ñu war yee ku laa naan naam ne fa mhm. ku naan man bëgg naa nekk poste maire day fekk nga fekke ko tal ko mhm. suñu nelaw yeewu sax mhm. xamaguñu ko leerul donc nañu boole lépp bàyyi politique bi moom mooy kilifa gi na woote ñu toog autour d'une table ñàkkul ne dina woote ak li mu dégg tey waaw mais comme que l'original aussi moo ko wax bon sa va poser problème mais maa ngi koy ñaan rek di ko wax ne rek na woo toutes les force vives ñu dem a xool bu mu xaar rek ci li président di indi wala li nguur gi di indi ndimbal yooyu dafa néew ci Parcelles Assainies mhm. donc nañu génne ñun suñuy propre moyen mhm. nañu ko permettre ñun mhm. def suñu conseil municipal permettre ko mu def ay virement de crédit ñu créer benn poste covid 19 alimenté ko léegi léegi ñu def les mandats qu'il faut pour que tey ceeb bu bari diwlin ju bari suukar su bari am Parcelles Assainies pour que tey dara duñu bett loolu mooy lancé bi li ñuy ñaan donc euh, loolu la daal. Mamadou Gueye maa lay gërëm di la sant. mais maa ngi lay gërëm di la sant Mbemba di gërëm réew mi vraiment vous m'avez permis ma waxtaan ak Parcelles Assainies. Mhm. waaw sant la gërëm la. mais maa fii la ëppee. fii la ëppee jox mbokk yi dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah rabbi. jërëjëf.